soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent de si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix. Semester Avenue Semester Avenue show live on GTTV sargal suñ moodu moodu yi ak faatu faatu yi are you coming to the Gambia this holiday season moo xam nga jógee foofu ca Sénégal Germany USA India China wala sax United Kingdom préparé leen ndax dinañ leen celebrate fii ci GTTV suñ moodu moodu yi ak faatu faatu yi ñefe nañ ak doole ca bitim réew kon donc deserve nañ pour ñu sargal leen saa yuñ dellu see seen biir réew te loolu nag lañuy def fii ci Semester Avenue sargal Gambien diaspora ñu wax ñu seeni jaar-jaar tukki coono la waaye ñefe fula la kon doog yéen bari fula Cuiabá, na ju am jom nen dem xol ki moy kan tek len fofu sen bara ma wan len ki moy kan suñu gan moy kan man ñu ma xam man am ci <laughs> and I'm proud mun naa ko wax si internet bi man bugguma yëfi yaaxa because lu tax bugguma yëfi yaaxa man nu ma dee fàtte gannaaw man nu ma dëkka dëkka America 21 years ma ñëw I always remember I'm from Nyame Nyamena Dankunko a village where people are still suffering and people don't have the basic necessities of life ah, ñu gis ne yaa ngi America gis ne ne tam nag dee boo susu di yàggut rek ñu dégg bi nga xam ne internet ah, a xam ko bara oh, yi leer <laughs> because man jayuma suma bopp waaye man du ma dee kufam ba pare du ma dee technique but man mun naa àndaa yow nga am diamond ten times nga la ko billaahi walaay taala dama laa wax ne ne rafet na de waaye xam naa ne man su ma ko buggee jënda du baa si man Binga nga do ñew wax yang sa No. yaangi ñew non waxuloo wo dara waxuma ko de maa ngi mo ta tax ma nyu bari na nga musa jifande ko taba o subhanallah ah just come come with me let me show you Hey, Hollandly, lii musa musa mos a gisee buy holiday di ñëw si on place am di sanseli Hollandly. ah dañ fi ñëwoon tey si congrès bi fekkee ko. noo gisee congrès. sant yàlla xanaa baax na. ñu ngi dégg ne fu mu nekk on the eight ah, président bi dafa def baan ah, foog nga ne yéen GDC di ngeen mën a def seen congrès. incha allah dinañ ko def. su baan bi amee sax da ngeen a def. dinañ ko def bi foo baan bi. ah noise baa ñoo disturb. waaw Mama Kane mi nga xam ne moom moo amee. ñeneen si moom moo egg si nii right waa gis ngeen ne GDC Mama Kandeh moo nekk ni di dem ñu gis ko mu ngi ànd ak gaayam ay nit yu bari ñu ngi ko toppa mu nekk loo xam ne lu rafet la gis ngeen ne honorable Mama Kandeh moo nekk nii di dem mu nekk loo xam ne nag yombut askan bi ñu bari ñu ngi bëgg am interview honorable Mama Kandeh ñu ngi doon bëgg a waxtaan waaye network bi baaxul fële ne la na nga def. jaama rek na nga def. Euh, euh, ñu la gis tey si UDP euh, APRC seen congrès bi noo gisee APRC congrès. bi xanaa baax na neex na rafet na organisation na tamit waaw. Ah, kañ la GDC di def seen congrès. very soon very soon like kañ. before the lockdown incha allah. before the lockdown ne on the 8. ñu bari ñu ngi wone GDC président bi dafa xam ah, yeena ngi pare ku def sen ah, congrès moo tax ñu jël bobu lo mëna lo ay on I only hope ne li ma wax ni aduna aduna bi yeb dinañ ko dégg so président waxee né dañu def lockdown on the 8 dafa am lum target lu tax ñuy def lockdown su fekkee ne affaire Covid 19 la why on the 8. ndax on the la Covid 19 bi di start ndax Covid 19 bi am na before on the 8 correction bi bëgg ñoom nguur gi ñu leeralal ñu ko because su ñu waxee state of emergency emergency la ñu wax soo waruloo ko appal ay week nga ne suba si sangam jotee dinaa def nii ci loo xam ne ni is an emergency kon nañ ñu waxal ndax on the la Covid 19 di start Gambia. o ndax on la covid 19 cases di gën a yokku Gambia ñun xamuñ waaye bugga nañ xam yes ñun xamun waaye bugga nañoo xam ah, yéen seen parti ñu bari ñu ngeen ne dee na ah, parce que président Adama Barrow mu jël gaay yi ah, yóbbu si seen boor ragal nga nda loolu waxi ku daanu si sareet la foog na moom si boppam dafa daanu si sareet parti bi mooy seen te lu ñu ragal duñ ko duñ ko mooy du leen mooy mukk di siya ñu naaw ñu bota dinañ daanu maa ko GDC gars ne nañ la gëj a gis lan moo xew MC a wax ak moom tey dañoo use occasion. dañu bugg a dañoo. ñu bari ñu ne GDC dafa daanu loo ñu mën wax. waaw yow loolu ñoo ñu ñëw wax loolu waaye GDC daanu ndax GDC li moo def si dëkk bi benn parti def ko ko fi. mu ngi jël sa ay nit nooy bu nekk ñu nga jël ay nit ci président bi ba pare media bi waxuñ loolu. ñu mel naka. ah ñu mel. ñu bari ñoo xam ne ni. waaye kii position leen wa. waaye waaye NP bi seen bopp dañ amagut base. amuñ bés kon ñooñu duñ dara déedéet. nii moo demee ba léegi duñ taay duñ dem ah, dañoo toog di ko déglu ak waxtaan. Ah, ah, I'm not getting you. What does this First of all, I will have to congratulate the APRC. Um, I think um, everything was well organized. And um, this is nothing new in the APRC. because it's a party that has been existing for more than 20 years. So they really know what, what they're doing. And I think I'm happy myself being here and seeing the way they organize things. And I'm congratulating them for a job well done. I mean, being from another political party does not mean that I'm not a Gambian. I'm a Gambian and we are all talking about the same Gambia. So it doesn't matter which party you come from, what matters here is the Gambia. And this is what matters for us all. ah bi léegi rek ah, kii honorable Mama Kandeh mi nga xam ne moo amee GDC ah, parti ñu bëree bëri ñu ngi ne parti bi dafa dee parce ki nga xam ne moo nekk ah, honorable bi naal jël na yëpp si GDC. going ahead and and uh, maybe do our congress before the lockdown but still depends on the discussion of the executive who have the, the, to decide on what we need to do. I don't have the powers, but the executive do. Thank you. jërëjëf kon nag honorable Mama Kandeh ñëwoon na ah honorable one minute ma boole la ak sa du ñuy bëgg a ñu lay interview waaye nii la moo demee kon ah nga ne loolu. nekkoon police si Gambia jamono jooju corruption am na parce que police yi jigéen ñi si dëkk bi du ñëpp nag waaye koo si romb mi ne ana ndéewo bi ana añ bi yéen seen dooraan def yooyu. Ah, sometimes <coughs> a ko tuddee léegi nag bàyyi nga APRC léegi Adama Barrow la di nga fi toogee dégguma nga ne yaa ngi nuyu Yankuba Colley dégguma nga ne yaa ngi nuyu Yaya Jammeh dégguma nga ne yaa ngi nuyu Faba Karita Manjata suñu honorable dégguma nga mention waa APRC mbaaxee waxtaan mi door na xool leen defaru na waaw si lañ mhm. que ñu ñëpp Gambien ñun politique yi Gambie ñun amuñ si suguru weeru koor. Mhm. amuñ si xarit tobaski amuñ si ticket yi Màkka amuñ si nothing ak nu ma yàggee si politique bi lu ma am si politique kon. kan ñoom ñëpp jógee si kaw ba si si Alaaji Cissé suuf. Alaaji Cissé protocole Alaaji Cissé Ba ñoom ñëpp jamono boobu. yow tam man yaay compagnie mu jógee Amérique ñëw ba ñu am Gambie fii ne damaa gis yaa jame ñu ne ma doo ko gis. lu tax. Ah,